maa doon gëstu man maa gëstu. waaw man maa gëstu rek maa gëstu samay gëstu. c'est xaaral. dégg ma ne ko mi nga xam ni delloo na caamaas caraw taj ba caamaas taga témbee <laughs> Cheikh Baara waxuma ci dara walaay ba léegi waxuma ne moom. moom waxuma expliqué mais man maa gëstu. ah saytu mbir yi ba wër ndomba mbir yi ba xam ne caa la waaw ba xam ne caa la ñu àndaat ceeg Cheikh Baara Ndiaye borom def gis nga xam dinañ ci waxtaanee lu jëm ci actualité. ñu mm. bari ñu ngi koy xaar di déglu version ci li nga xam ni mooy li xew ci penc mi. parce que am na yoo xam ni bi xewoon na ci mais balaa dara di xew ñu nuyuwaat la Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñu ngi lay nuyu di la ziar. ahousubillahi min asheytaan irajim bisimillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi aman wala fala tahlamu ma uxfiya lahum min xorati ahyunin jasaan bi kaanu yamalun maa ngi lay fay di nuyu ñi seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di nuyu ñu bokkal plateau bi di jiital ci nuyoo ba nag eh, cheikh mohamadul muntaxa xalifa général de murit ak sunu sëriñ cheikh mohamadul moustapha ibnu cheikh sidil muxtaar di nuyu soxna may ibnu cheikh sidil di nuyu itam alxaaji Mbacke yu fay ak uh, sëriñ Mbacke Mara Touba. waaw ñoo ngi leen di nuyu bu baax baax. waaw jërëjëf. waaw di jaale bu baax itam sunu wayjuru jigéen uh, wow fi jóge muy soxna sëñ Muntaxa. di ko jaale bu baax itam doomam sëñ Maam Mor. Mm. ak mboolem njabootuk uh, sëriñ Basiru Mbacke gépp ak sëriñ Moussa Nawel itam maa ngi ko koy jaale bu baax. Mm. waaw. Mm. Euh, dañuy ñëw yow ci li nga xam ne actualité parce que dafa am loo xamante ni euh, da nga ko waxoon fii ci émission Taku Show mu jëm ci wàllu Ousmane Sonko boobu nga koy wax yëpp xewagul te it nit ñi am na yu bari yoo xam ni yëguñu ko bi nga ko waxee mu nekkoon loo xamante ni bi peut-être sénégalais yu bari jaaxle woon nañ ci ci bu ñu gisee Ousmane Sonko lan nga waxoon dañuy ànd ak rési ñu déglu vidéo bu gàtt boo xamante ni ci plateau Taku Show nga ko waxoon. ñu soog a ñëw ci waxtaan bi je vous en prie avec Wadri. Ousmane Sonko yow fu mu toll nii looy xalaat. li ko ci mën conseiller ci lii mooy na gën a wutaat ay conseils yoo xam ne dafay dox dañuy wax xam ay ci di mooy lépp lu muy bëgg a defati ñu koy conseiller ñu xool lan man galgal lañ ko mën a def ci wàllu yoon. parce que mm. tamit xam ne tamit ñii mun seqal nii. Mm. mayuñu ko dara moom. parce que lu mu maanaam bunt bu mu ak lu mu tuuti tuuti da ngay gis ne ñu ngi koy exploité. Hmm. loolu nag na ko bàyyi xel. te xam ne tamit len loolu moom dama koy wax ni ngi koy xeexee ci saayir nii. waaw na xam ne ci baatin tamit ñi danañ ko xeex xeex bu gën a rëy lii moom. loolu moom na ko xam. ci baatin oui loolu moom nag bu xam naa sax xam na ko parce que jàpp naa ne am na lu mu ci xam. moom waaw en tout cas daal booy booy wut réew mhm. ni ngay doxee ci saayir bul bul nekk nit ku naan ay gëw ma léeg gëw ma laa moom Casamance la dëkk na leen ci ay maamam mu defar yaramam mm. sinon mën naa am du baax te loolu moom man xam naa ci dara xam nga ci dara waaw jërëjëf Cheikh Bara jërëjëf Cheikh Bara mu mel ni defoon nga ay alerte pour wane nii am na ñu koy wut te bët nañ jaar fii mën nañ jaar fële waxoon nga sax ba ci biir vidéo bi que ni Ousmane Sonko wérut waxoon nga ko ci vidéo ci kii bii la waxoon nga ni Ousmane Sonko it wérut Cheikh Bara da nga am agent secret ci Ousmane Sonko bu koy saytu bu la wax ni wérut ak tamit lii nga xamante ni mooy complot yi nga xamante ni bi moom nga waxoon ci ay jamono tey ñu ñëwaat ci même scénario boo xamante ni bi ci la nekk ni lu la taxoon nga xalaat loolu nga xamante ni moom nga waxoon fii lu waral di eh, nuyu topp xam naa ne <laughs> man sax tey bi may ñëw dama ne woon moom mbirum Ousmane Sonko xam naa ne du ñàkk ne dañ ma ci laaj waaye bëgguma ci woon a wax dara nag ndax xam nga dafa xaw a sensible ci yoo xam ne mbirum sexe la mm-hmm. ak ay tuuma. Mm, nga bëgg cee wax loolu dafa xaw a xóot di ci des it mooy loo xam ne dafa duggaat ci wàllu yoon hmm. boo nekkee ab citoyen du neex nga di ci wax te fekk yoon mi ngi def ay gëstuum hmm. waaye comme nag tamit euh, dafa nekk actualité bu mag te tamit dafa laal ci aspect politique ci lu baree bari hmm, danañ ci wax waaye nag doo mën a xóotal say wax dëgg-dëgg ndax ñaari mbir yooyu moo koy waral bu dee nag ci vidéo bi Euh, man day am na lu yi xew nii moom li ma ci bett bëriwul. Hmm? waaw xam nga da dul mën a toog ci tele mm, ak politique ni mu fiire nga mën a wax naan diw wérut na dem faju lii moo koy metti hmm. waaye man bi ma jógee fii ci keroog bi émission bi jàllee am na koo xam ne fii lay liggéeyee sëñ Baara Jenn hmm. woo na ma mu ne man ndax dafa am loo xam ci diw mën a ko waaw xam naa ci moom nangam ak nangam ak nangam. mu ne ma bu ma doon yowaa damay jéem a dox ma dimbili ko. Mm-hmm. am na ku ko jege koo xam ne xam naa ko wax naa ko ne ko waxal Ousmane Sonko. Mm-hmm. ne ko tawat jooju su ñëwee man danaa ko ko fajal. Mm-hmm. ci gratuit te maa moom ak yàlla ci lay yem. te nga wax ko itam mu gën a jël ay matukaay ci boppam. parce que man njort naa ne su moytuwul rek. Euh, danañ def ay pexe ci kawam. jàpp naa ne nag kooka wax na ko ko waxu ko ko waaye man gëm yaakaar naa ne wax na ko ko. Mhm. xëy na nag euh, xaw ma lu tax gisuma ko waaye gisuma ko dégguma ko. loolu daal jot naa ko def ci lii am. Mhm. waaw waaw. Mhm. léegi boo le fait que complot yooyu lu tax nga waxoon te fi mu toll nii ci jamono ji toll yi ci affaire complot lañ toll. ne dañoo complot loo gisoon ba mu wan la ne complot waaw léegi nag mbirum Ousmane Sonko moom maanaam bu ma ci bëggee wax. Hmm. li may njëkk a wax mooy. Hmm. maanaam bu ci amee kenn kuy perte Sénégal la. Hmm. ndax soxna sim ko séqal muy Adja Sarr doomi Sénégal la fii la dëkk Fatick. Euh, Ousmane Sonko itam doomi Sénégal la fii la dëkk muy Casamance. kon donc ñoom ñaar ñëpp nag ay victime lañ. Adja bu fekkente ne li mu wax ne Sonko ko ko def moo ko ko def. victime la bu fekkee tamit dañ koo jël di ko comploter loo. victime la ca ña ko yor di ko complété loo mm-hmm. kon moom victime la Ousmane Sonko tamit lii ñu koy giiñ bu dee def na ko mm-hmm. victime la bu fekkee dañoo comploté ci kawam def ko ko victime la mm-hmm. kon nag euh, daanaka amu ci ngañaay te it boo xoolee fii bu ñu fi masaan toog su ma masaan ñëw da nga naan ma actualité sàngam am na actualité sàngam am na actualité sàngam am na <coughs> nañ wax ci bii nañ wax ci bii tey nag daanaka gis nga réew mépp benn actualité la am muy seen problème ñoom ñaar kon da ngay xam ne loolu ana yeneen actualité yi waroon a am lu leen téye kon na nga xam ne réew mi taxawane na hmm. ngir mbir moo xam ne wërta woon a taxaw taxawal ak kër sax waxuma la am réew hmm. kon nag loolu daf ciy am bu dee nag ci mbirum euh, Ousmane Sonko dafa am ñaari aspect yu ci am dafa am aspect politique hmm. bu foor bu ci am am aspect euh, maanaam juridique laa ko mën a wax bu dee ci aspect politique man damay wax ne yàlla na yàlla yërëm Sénégal ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall ah parce dafa am lu am muy muy ñoom ñaar ñëpp dañoo sote classe. dañoo sote. classe dañ leen a tëbal wala dañoo tëb. Ousmane su ah, Macky Sall. waaw dafa jóge ci pouvoir ba rek. ñu jox ci opposition bi defu fa deux ans trois ans. Mhm. ñu ne ko ñëwal yaay chef d'état. Mhm. kon burle na étape. Mhm. Ousmane Sonko dafa jóge ca politique dafa jóge ca euh, impôt et domaine. ci lu matul trois ans ci ginnaaw maa ngi fàttaliku mun ndooy baan. ak Sonko ñu toog ca quartier général TFM. baan naan ko yow mi foo toj. Mhm. xam nga loolu kuñ koy laaj cim réew. kenn mhm. xamu la. waaw kon lu matul ñetti at ci kanam. Mhm. ñu ne Ousmane Sonko mooy leader de opposition. kon sote classe bu metti am na fa. ki sote classe nekk président ak ki sote classe nekk chef de opposition su ñu dajee tey ñaari xale yu góor. même bu dul problème bii problème bu taal Sénégal mën na fee juddoo. Ah. waaw parce que ñoom ñaar ñëpp. kenn ku nekk baatu cuune laa ko mën a tudde parce que nit ki li nga li nga waroon a dund te dundoo ko. soo demee ba ca kaw moo lay rattrapé. Hmm. Macky Sall bi mu ne Ousmane Sonko dafa nekk biir impôt di ko di ko di ko di ko sànni ay kàddu. mu ne xaaral ma xeex ko. daat koy dàq. waaw dàq kooku jàppoon na ne moom mooy mën a lijjanti mbirum Ousmane Sonko mu mel ne daf ko taal. Hmm. ñu jóge ca. da ngay gis xeex bu nekk rek mën naa ko wax. Hmm. ñu ngi ko koy xeex. Hmm. di jël xaalis di ko tuumaal di jël ay ay ay ay ay ay ay ay dossier di ko jox. Hmm. ba ci ensemble bi dajaloo nañ ci plainte Ousmane Sonko def seen commission bi ñu defoon. lépp ngir Sonko. ñu mujj yàgg ñu naan ko sax kon plainte bi yoonam nekku ci. ba nga xamee ne yoonam nekku ci énergie bi ci député yi def ak ñëpp lu taxaw nañ loolu. nga gis lu toll ne Boun Abdallah Dionne. wala. Euh, Aly Ngouille Ndiaye nga xam ne kenn gënoon na nekk kilifa ci réew mi da nga gis ñu def émission boo xam ne une heure de temps lay diire. Mm-hmm. kàbbar ci Sonko sëlmal ci Sonko. <laughs> waaw. ñu dem ba benn jamono ci xeex. waaw Ousmane Sonko dem na ba nga xam ne mën naa wax ne ay fan nekkoon na ko président de la république ñoom Macky Sall nekk opposition. Mm-hmm. mooy fan yi ñu naan ko yor naa sa image. Mm-hmm. témoin baa ngi fi maa ngi vidéo bi mën naa koo génne loolu rôle opposant la. <laughs> opposition bi ñoo waroon ñoo waroon ñoo waroon a bàyyi pouvoir bi di doxal ñu enregistré ka wut ay preuve di leen andil. Sonko taxaw naan génneel. kon donc moom mooy président bi mooy mooy gouverner ñu koy déglu réew mépp di leen déglu ñuy daw di wëri audio di dugal di génne donc kon loolu lépp cuune ci maanaam Ousmane Sonko mën naa wax ne énergie bi mu def ci politique wala ay stratégie man bëriwul ci man xam lan laa wax hmm. may waa APR ñoo ko tabax ci seenu cuune hmm. ba mu toll nii mu toll hmm. Ousmane Sonko tamit nekk leader boo xamante ne ci ay faay la dëkk ci kuy seetlu Ousmane Sonko rek laa ma a gis mu wootee euh, ab conférence de presse ñi journaliste yi ak ni ñu yéemee nga xam ne boo dajee ñoom da war a tiit. Mm-hmm. ñi taal micro yi mu dem toog nee moo ku ñuy wax Ablaye Niane directeur campagne am ba. waaw di déyante ci seen i mbir yi bopp. ba muy rëcc di dugg ci micro yi. waaw xam nga loolu faay la. waaw mënoon nañ faa wax lu ne tey. waaw loo xam ne bu fa jógee dañ naan eh. kon faay la. waaw Ousmane Sonko am naag problème doon na ko jéem a exploité waaye. Eh, son bi moom moo normal mënut mënut woon a jëlee lu bëri. waaw waaw. Ousmane Sonko. Mm-hmm. ma Mansour Faye tëkku na ko ne ko dinaa la génneel ay profil yi wane na ñëw nga sama biro waaw donc kon warta woon a jël téléphone am. di ojo Issa Sall bañ koy capté di génne prof bi. waaw bay jël audio. parce que ñoom après ojo boobu rek. soo ci dolliwaatee tey. waaw lii mu def nii. Mm-hmm. mooy di génn guddi ànd yow dong même dem jàkka sax su Ousmane Sonko waru ko woon a def di ànd moom dong waxuma laa nag. di mm. dem ci millier boo xamante ne sëñ Abdou Karim dafa maa mas a wax lu am solo mooy def ne. Mm. bu la adduna bépp xamee. Mm-hmm. di jëflanteeg ñi nga xam yow. dégg nga bu la àddina bi yëpp xamee bu la ñëpp xamee deel ñi nga xam man loolu sëñ Abdou Karim ma ko waxoon sa xarit moom sëñ Fall loolu nag Ousmane Sonko bind boobu bu ko waroon a jël mooy wërta woon a wuyu téléphone kum xamul mm-hmm. wërta woon dugg ci kër kum xamul wërta woon a sax nangoo jox ab yaramam kenn koo xam ne kii mënul ne fii la juddoo fii la nekk mooy diw mm-hmm. kon yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne ay faay la yu muy maye yooyu nag. Mhm. li ko ko def mooy nekkul politicien boo xam ne dafa rampé wu ci politique nekk militant di milité wu di gis ni politicien yu magee di doxee. waaw moom ca liggéeyukaayam la jógee ñëw rek far burle classe. Mhm. ñaari burle classe yi nag bi ñu dajee. moom moom lu nekk mën naa judd te dañuy ñaari xale yu góor. Mhm. voilà bu dee nag ci wàllu complot bi. waaw complot bi. Euh, ñaar moo am. mooy benn dinaa nangul Adja Sarr li mu wax cinquante pour cent. li Adja Sarr wax waaw mooy Sonko daf maa wiyoo dem pelent ci moom. dinaa ko nangu cinquante pour cent. Mhm. ba pare doog a ñëw nag ci complot bi man itam li Sonko wax muy cinquante pour cent. Mhm. parce que ñaari sénégalais lañ du ma jéng fenn. waaw wala talbisu xaqa bil baatili wa taktumuna al xaq wa antum taalamun mhm. lay doxee fii Ousmane Sonko na mu demee. waaw ak heure ba mu dem. waaw maanaam dem gi ak demin wi. mën nañ cee ñaaw njort. dem gi ak waaw. heure bi mu dem ak ànd moom képp dem viole képp kuñ ko def yàq nga doon violé wéet ngeen ci mu nekk te ñoom ñaar dem na fekk fa nekkoon wéet nañ kon li ajaa wax kenn mënu koo dàq cent pour cent d'accord waaye Ousmane Sonko nañu xam ne euh, tey jii bu ko éliminer ci politique dina am ñenn ñu noyyi lool mm-hmm. te du ci jiitu kenn ku dul waa APR kon amul kenn ku ñu mën a wax ne lii am te bu bu sottee ñoom ñooy gën a noyyi ñëpp. waaw defuñu benn effort pour kon affaire bi mu sotti pour ñu noyyi. Hmm. loolu dina am bu fekkonte ne yor nañ tamit ko nga xam ne mësta xeex Sonko ci dara. su ne maa mi ngi may xeex nga ko gëm. su fekkonte ne tamit nekkul koo xam ne dafay éliminer ay ay ay ay adversaire politique am parce que mën nañu jël ne Sonko ak maanaam problème Sonko bi ak deux mille vingt quatre. Hmm. troisième mandat wu Macky Sall lëkkaloo nañ. waaw liñ lëkkaloo ñaar la. muy benn mooy Cissé bi élection yi jàllee Cissé nee na su xalifa Khalifa Sall ñëwoon. ak Karim Wade duñ am deuxième mandat. waaw kon ñoom am nañ deuxième mandat ci éliminer adversaire waaw kon su fekkee dañoo bëgg troisième mandat est-ce que yoon bi ñu jaaroon ba am deuxième mandat dañ koy bàyyi wala dañ koy continuer li xel nangu mooy dañuy continuer éliminer adversaire pour mën a am taxawal troisième mandat kon xel mën na cee ñaw mm-hmm. le 10 janvier 2020. lañ criminaliser viol fii ci Sénégal. muy daaw muy daaw net at net Ousmane ko nee na daaw laa commencé fréquenté euh, bërëb ba te kan buñ criminalisé wuloon viol mm-hmm. boo ko giñee viol tamit du mën a yàq candidature am mm-hmm. kon diñ doon sarsewaat euh, loi boobu ne nañ ko criminalisé mm-hmm. lii lañ ci bëggoon wala dafa tombe benn la ñaareel bi ci des mooy ab politicien saa bu lay xeex soo ko tegaloon fii pelante ne ko porteel pelante ak porteel presse. Mm. day opté porté presse. Mm. may mun a nduur fay. waaw bu set TV. waaw laa seetaan mu ne. Mm. moo mu dalal Birima Ndiaye mu ne. en plein de élection. Mm-hmm. Euh, campagne électorale. as ndaw ñëw na ci moom. ne ko yor naa ay audio yu Ousmane ak ay mbind yoo xam ne dafa ma doon sàkku ci sexe. te moom dafa am jëkkër ndaw soosu ñëwoon. waaw may mun a nduur nee na ma xool. lim ma wax doyu ma dugguma ci. Hmm. kon da ngay xam ne njëkk nañoo jóg pour porte ko presse. Hmm. sottiwul ñu doog ko dem porte ko plainte. moo ko wax mi ngi mi ngi ci internet. bi ma ko loolu moom ci jamono ji. ah moo ko wax non xam nga àdduna moom moom moo ko wax. waaw ah, mais le fait que léegi kon moom na porté na presse kon da ngay xam ne njëkk nañoo ne bërëb. may mën a Ndour Faye moom ngi koy tukki moom it moom kii. ma ne angle bi mu fee njëkk nañoo <laughs> njëkk nañoo njëkk nañoo uh-huh. porté presse kon. sottiwul ñu doog a dem ci porte plainte hmm. damaa woo koo xam ne euh, sama xaritu mbàkke mbàkke la dafay liggéey ci wàllu viol hmm. ma ne ko damaa am lu ma la bëgg a laaj mooy est-ce que benn nit mas naa ñëw ci yow di porte plainte dañ koo violé te fekk moom miñ violé moom moo ñëw plainte hmm. mu ne ma mosuma ko gis ma laaj ko ne ko ndax mas ngaa gis kenn kuñ po kuñ violé mu ñëw di porte si plainte àndul ak benn mbokkam nii la bàyyi nii la ndey nii la nijaay. Mhm. mas nga koo gis mu ne ma masuma ko gis te ay ati ati at. ci loolu lay yëngatu. man nag maa ngi laaj yoon. Mhm. lu tax ñu wéewale nit. senegal gépp kuy wéewal ku ñu wéewale. Mhm. ànd ak say bokk ñëw pelent si. lu tax ndaw si moom kepp ànd. bi ci des nag mooy fi ma koy tëje mooy euh, damay wax ne ku ñu xam. mu nekk lu ñu xam. waaw ku ñu xamut dafa ñëw di ñu wax ci moom lu ñu xamut. waaw balaa ñoo bàyyi la xamoon ci ki ñu xam. waaw ki ñu xamut nañu jox lu ñu xam lu leer. Mm. ñu doog a bàyyi lañ xamoon. dëgg la loolu nag ay ay wax jël jaxasoo na waaye mën naa ko firi mooy Ousmane Sonko dañ koo xam. waaw suñ ko xamee mooy député la. Mm-hmm. fii ci Sénégal. waaw élection yi jàll demoon na élection kon candidat la. Mm. Macky Sall ci boppam mi njiitum réew mi bi fi corona duggee ñett nit ñi njëkk tànn ne kaay yéen wax man li ngeen xalaat. Ousmane Sonko da caa bokk kon ñu xam la ne ci luñ xamit mooy politicien la député la mhm. chef de parti la mhm. liñ ko xamal mooy lii mhm. ajaa Sarr nag moom xamuñu ko xamuñu ko ndax man amul Facebook ñoom ñi ko xam sax fenn amul non du ma du ma jàll foofu waaw waaw dama ne ah, amul Facebook amul Instagram amul TikTok comme ni ko gone jigéen yépp ame est-ce que amu ko woon ñu dindi ko. non damay laaj rek lu tax ah. amu ko. non nee nañ amoon na ko. non dama ne man daal damay laaj. Ah. lu tax muy xale bu jigéen yi xol yi gone jigéen yi am amu ko. Mhm. kon inconnu ngew waaw bi ci des mooy viol la ñu présenté ne moom la ma Ousmane ko def. Mhm. ñun xamee luñ ko loolu. Mhm. viol bi nag su doon tane nee na dama koo def ma mer dem boole ci. d'accord waaye def na ma ko tey def ma ko suba def ma ko gannaaw suba defaat ma ko gannaaw ah. suba te it lu normal fii ci Sénégal mooy biti mii mm. su ma ñëwoon këram fekk fab jànqam mm. ma di ko def lu dul noona mm. li njëkk li normal nga xam ne bu ci loxo duggul daf may booleeg biti su ma biti su ko biti faalewut mu dem boole maag yoon waaye ñu indi la ci kër di la liggéeyloo nga am loolu naqaree ca kër ga ab oto jël si la nga dem ba ca bi ba ca rajo ba nga waxe ko fa loolu waaw dafa tey xel tey na xel bi ci des nag mooy fi ma koy jeexale mooy lan moo ci nekk aspect politique waaw mooy Ousmane Sonko wax nañ ko ñëwal wuy si mu ne wuy si wu ma mhm. parce que Macky Sall ñoom ñoo may comploté te su ma demee dañ may indil ay ndëgg sërëx waaw daal di ne nañ ko dindil malaanu kiir laayam mhm. parce que man damaa gis ne li mu doon bëgg foofu rek mooy mhm. euh, comme waa APR lañ ne dañoo neutre ci mbir mi kenn waxu ci te loolu nag lu ma jaaxal la parce que mm. Macky def na at. di lijjanti pour nu mu tëjee waa këram. seen gémmiñ ba duñu wax ci. troisième mandat bi munu koo am. te daa jël sanction yi teg ko nii. <laughs> waaw te munu koo am. nan la mën a amee diggante jeudi ak vendredi. mu noppiloo ñëpp. ci nenn mbir <laughs> man loolu. loolu affaire bu ma jaaxal la waaye daal moom en tout cas. jaaxal na waaw renvoyé na ko. ci politique. Ousmane Sonko parce que dafa jël dossier bi mu politiser ko. Mm-hmm. mu directement mu song Macky Sall. Mm-hmm. ba pare na député yi dem leen dindi sama mbalaanu kiir laay. la fait que mu may temps dossier bi mu déroulé rek. mbokki politiciens yi dinañ ci wax. suñ ci waxee ñu politiser ko. Mm-hmm. dafay am temps dafay am kii ba pare temps bi mu am. mooy tey gis nga opposition bi ñëpp ñu ngi daw ñëw di ko renforcer. loolu yëpp dafa nekk loo xam ne technique politique la. te am na lu mu ko mën a rendre. Mm-hmm. waaye daal li am solo rek mooy. nañu xam ne Sénégal la. Mm-hmm. am nañ euh, justice. doonte nag man damay laaj ba xam est-ce que sénégalais yi pour cent rek. maanaam euh, am nañ ko wóolute ci seen seen justice. parce que tey problème bi bu amee li ñu waroon a wax mooy xëccu ne. Mm-hmm. nañ dem justice Ousmane Sonko dafa waroon a wax nañ dem justice mu àtte ñu. ndaw si ne man damay dem justice pour mu àtte ma. mais bu kenn ko nekk di daw justice bi rek. kon justice bi boppam na xoolaat boppam. voilà. jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye boroom def gis je pense que ni analyse bi am na solo. Mm-hmm. génn nga fi ay mbir yu am solo. Mm-hmm. yoo xamante ni bii vraiment euh, rafetlu nañ ko. donc ci ci parrainage yi. waaw parrainage déglu naa Aly Ngouille njaay ba ñuy wax ne dañoo jël parrainage si Sonko. Mm. muy wax ak booyu Sonko bi booyu Sonko mi ne ko yéen a yéen a yéen yebal gars yi ñu sàcc suñu parrainage mu ne ko yéen da ngeen a yàkkamte rek waaye ñoo ngi ñëw. Mm-hmm. waaw ñoo ngi ñëw nag moom ay wax la. ñoo ngi ñëw waaw. loolu da ngeen a yàkkamti rek waaye ñoo ngi ñëw. waaw boobu Ali yëgut ni mi ngi dem. Hmm. waaw jërëjëf. jërëjëf euh, Cheikh Bara Ndiaye borom def gis defe naa ni mbir mi am na solo ni nga xam ni boobu nga jàngat foofu defe naa ni génne fa ay points yu am solo Cheikh Bara mais ba tey dinaa reste ci euh, parce que dañu ñëw ci pàcc mu cosaan. Hmm. parce que Sonko dafa wax benn kii. Grèce yeew mm-hmm. je pense Grèce yeew la wax mm-hmm. ne ci ndigg luy metti ci ay kii quoi maanaam Grèce yeew dafa am lu mu mën a def wala déedéet mm-hmm. Grèce yeew lan lay jariñ Grèce yeew waaw léegi nag foofu waaw mm, dañoo waroon dañuy ñëw ci massage ci boppam waaw massage waaw massage baatu tubaab la waaye boo ñëwee fii ci suñu réew mi dañuy wax ne dàmp dàmp waaw sax nga gone gu jigéen jóg ndigg li jekk lool ñu naan ko yow ku la dàmp waaw ndax <laughs> dàmp lu muy moom mooy massage ñun nag da am tànk buy metti ñu koy dàmp mm-hmm. wala ñu koy gàjj gàjj nga am ndigg luy metti mm-hmm. ñu di ko dàmp mm-hmm. wala sax xale bu juddoo dañuy wax ne boo ko bàyyee fi ñu feebari Ousmane sonk yooyu li ma mën a waat nag dóor ko sama loxo bi ci kaamin mooy bu dee dem ci massage kat yi gën a ay ci àdduna bi yëpp du wér du wér te bu ma seet si woon du def semaine te jógul dem yoonam. waaw. waaw. loolu mu ci waaw. wax naa ko fii ma ne ko bul négliger dara. waaw Casamance nga dëkk dellu fa ñu faj la. Mhm. loolu ay wax la. Mhm. booba man xam naa xam naa. waaw xam naa voilà. be waaye loolu. Mhm. beneen point la mooy euh, affaire bàttin la ba ëpp waaye daal. li am mooy Sénégal moom dañoo fonk massage. boo amee AVC dañ lay massage. boo amee euh, boo juddoo dañ ah. lay jël di fay man sama doom dañ ko daan yóbbu may fay xaalis bu seer fii ci ay bambara ñu du ko maasaas nga xam ne dañ koy téye ba articulation yëpp normal luñ ci bàyyi lu mu tuuti tuuti rek daf lay topp giru dund mhm. il faut ñuy maasaas xale yi tamit di leen bës di maase nit tamit dafa am lu ñuy wax ay colonne balaal fii nii fii lii ah. mooy njëkk a dee ci nit boo xoolee suñ suñu Sénégal gi kuy màggat rek yooro ngay njëkk a def nii sëgg sëgg. mooy yàqu voilà waaw. saa yoo gisee nit sëgg. du am ñaari at ñetti at a gisoo ay bëñam di wadd. Hmm? voilà dañoo lëkkaloo. ndigg ak kii waaw fii. ndigg ak bëñ waaw booy xoolee sëñ Touba waxoon na ne dee leen bëslu. Hmm. dee leen bësante booba nag góor ñi la ko waxoon. waaw Ousmane nag xam naa ne li ko rey it nag ab faux oustaz ci la bokk. ak foo massage. faux massage. <laughs> waaw ndax oustaz ba ko woo ba mu woo kooka mënoon na koo dimbalee leneen lu bokkut ak demal ñu maase la foofu noonu waaw waaye ndigg fii waaw nit buy dee fii mooy njëkk a dee hmm. nit bu dee buy seey fii mooy mujj a seey mooy mujjee seey waaw fii dañoo wax ne mën naa def soixante dix ans ci biir suuf doog a seey. te mooy njëkk a dee yax gii. waaw te bu nit di formé woot ci liy njëkk ginnaaw kër bi. waaw nambar kiit gi liy njëkk a formé wu ci la bokk. Hmm. voilà moo tax nit saa yoo ko séenee mu taxaw jodd ba yàgg mu yooru nii di sëgg rek xamal ne maanaam. Oh, den koy nuyu nambar kiit ga wàcc voilà te fu mu ne nii. Hmm. da ngay gis ba ñuy dem. Oh. kooku moom seetlu ko. Hmm. moo tax feebar feebar feebar yooyu dafa am feebar yoo xam ne bés. waaw moo koy dindi léegi nag dere garis yu yeew. daf koy faj. garis waaw. da koy faj waaw bu dee nag ñun ca bawal xam nga nag faj yi nit ñi ni ñu ni seen dëkk yi espacé rek. faj mi da ngay gis na day am wuute mm-hmm. moom Casamance la juddoo mm-hmm. ñoom jël nañ gari gari su yeew mm-hmm. di ko di ko di ko dàmpe yaram bu dee ñun nag dañuy jël akki daqaar akki akki daqaar daqaar gii akki di waaw garabu daqaar nga akkati ko nga dëbb ko boole koo xorom ak gari su yeew boo ko diwee fuy metti moom day dañ même faxaj boo ko defee mu mu mu mu neewi boo ko ci jëlee diw ko ci mu dañ bu dee fii ci dakaar sax man damay jël élastro defar ak daqaaj ji defar ko ba mu ànd garisu yeew bi nga tey ko fi metti jël élastro bi yeew ko ba mu dëgër. su defee ñetti fan rek da ngay gis mu wér. Hmm. voilà. léegi man Cheikh Bara hmm. li ma jaaxal mooy. Ah. Euh, yow consulté wu Ousmane Sonko da nga ko dégg rek mu wax ci wàllu mbir ki lekk kii yeeg yooyu. Hmm. nga ne bu defee une semaine.